lu ma jooy ndax jaru ko lii mooy mébét bi yéen lii mooy seen seen mébét maanaam téeméeri at yi ci ginnaaw ngeen di xeex yépp lii ngeen bëggoon atteindre ngeen seeni objectif xanaa tey bu ngeen tëddee di ngeen nelaw xanaa kontaan ngeen xanaa tey bu Marème Faye seggee kafe di ngeen naan xana tay bu ngeen waxtaanee di ngeen juboo xana tay bu waxtaan amé di ngeen ré di ngeen fecc seeni kanam parce que contane ngeen manam éliminer Ousmane mo doon xex bi mo doon mébét bi atteindre ngeen seeni objectif tay ben ngeen waye yalla jeexul Ousmane nee mom ku and ak mom du lamante du jooy bëtam du xom ndax yalla lañu doylo te bu ngeen yaakaaree ne bu yàlla ne waaw ngeen ne déet kii doon cinquième président de la république du Sénégal bu yàlla ne ci Pastef lay bokk ci kàttanu sunu borom garab gi nar a doon ker law bay du ko gis ba koy gor yéen nag du ngeen arrière yéen a yeey ne du ngeen reculer parce que lu bon li ngeen def ci réew doomu aadama yi ngeen rey ñi ngeen tëj ci prison yi